salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ni ñëw ak yéen tey jii di 10 mars 2021 ñu ñëw door revue de la presse yi King Ouse Ngary sama waa ji sunu sponsor bi ñu fàttali ko gars yi moom mu la ñuy àndal moo ñuy wettali ci yëf yi de. ñu tudd sant yàlla. sant yàlla boutique. marché Richard Toll cantine numéro. cantine numéro 106. numéro téléphone mooy 77 692 16. 93 accessoires lunettes dall ceinture lépp lay jaay. ku ko woo daal di nga am di di dina la bégal daal ci façon bu nekk daal dina la bégal ndax daal mbir a ngi ci woo leen ko Jules Thiané sant yàlla boutique ñu door revue de la presse yi ñu dooree ko fan. Espagne dañuy dem El Bernabéu. fekk moom nee na sauvage. xalaan koy mooy xalaan xalaan la fësal ca xët njëkk wa nee na ko sauvage sauvage de moom nuñ ko mën a tekkee ci wolof yëf yi mala mala bàyyi ma daal la gone gii di def gone ak Norvège gii daal ma ngay jommale fële ca Europe ginnaaw bu mu doublé démb nag ci Ligue des champions bi gën naa yokk ay yëfam nag ndax daal gone gi ñëpp a ngi koy bàyyi xel kon nag jëndam dina gën a jafe ndax équipe yi daal ña ngay daw di ko wutali moom mii di xirling xalaan waaye fële ca Paris Saint-Germain waa AS ñoom la titre de waaw tous les protecteurs sont sur Mbappé. kii di Kylian Mbappé daal bët yi yëpp wala gët yi yëpp ña ngeen ni jàkk di ko xool ndax lan jongante bi war a am tey jii diggante Paris Saint-Germain ak Barcelone kii di Kylian Mbappé kat yi yëpp a ngi koy xaar ndax kii di Real de Madrid moom ma ngay bàyyi xel kii di Mbappé kon Mbappé mii kat gars yi ñëpp a nga koy xaar te leen rek lañ bëgg ñoom waa Paris. éliminé Barça naam dooroon nañ ko 4-0 4-1 ca premier match ba kon tey jii leeral gi waaye kii di seen coach bi di Ronald Koeman nee na lu munul lu munul nekk amul lépp mën a nekk. waaw lu munul nekk amul lépp mën a nekk kon nag ñu xaar ko jongante boobee dina neex lool ci diggante Paris Saint-Germain ak Barcelone. ñu jugee As dem fekk fa. kan kii di Marcos Llorente la fësal ci xët mu njëkk ba. le leader joue son avantage. leader bi mooy Atlético Madrid tey jii lay football nag matcham bi nga xam ne mooy tax mu raw gaaña wala mu bañ a raw gaaña lu bari ndax kii di Real de Madrid ak kii di Barcelone ñu ngi ko teg nag topp ko rek bu gañee tey daal dina leen raw lu bari waaye nag. kii di Athletic Bilbao mii menace la de li ko waral mooy ñii di waa Atlético de Madrid ñetti match mu ngi nii gagné wuñ fële ca Wanda Metropolitano kon di tey la tey jii la. Atlético mooy dalal Bilbao. ñu commencé à six heures dix-huit heures. ñu fàttali leen ne loole match retardu Atlético la bu ko futbalee rek dootul rawante gars yi dara nag dañuy tollo waaye kii di El Cholo di Diego Simeone moom mii kat dañ ko laaj ci arbitre yi mu ne arbitre yi ñëpp lañ fi nekkal waaye tamit ñoom dañ fi ne il faut nit ñi di leen critiquer loolu mënul ñàkk waaye ñii di waa Barcelone ña dem nag ak seen président bu bees di Laporta nee na tey dafa bëgg dellu si dellu si dugg ci taarix li ko waral mooy dafa bëgg dem remonté ji kii di Paris saint la la da la bëgg a am fële ca Parc des Princes waaye nag dina miti lool kii di Laporta nee na loolu la bëgg waaye kii di Neymar du bokk ca yëf ya nag Neymar junior di doomu moom mii du bokk ci yëf yi waaye kii di Thibaut Courtois ma def ay jaloore ca Liga ba ak ci fële ca Real de Madrid ndax match Real de Madrid yu jëm ci Liga bi yëpp yëpp kii di Courtois da ko góolu mu mel ni kon ma ngay bind taarix fële ci Real de Madrid moom mii di Courtois. ñu jugee marka jël ëdee moom lu mu fësal ci xët bu njëkk ba. Deportivo moom nee na xalaan kii di xalaan moo tàgge ñii di waa ndax dafa doublé démb ñii di waa Séville nag démb kenn xàmmewu leen match bu bona bona bon lañ def waaye ñoom it ña ngay wax de waa Séville nee nañu arbitre bi daal ñun daal xam nañ ne def na ay erreur ndax penalty ba jaarul yoon jaaduwul ñoom ñii ña ngay xarab arbitre ba ñoom ñii di waa Séville kii di xalaan nag moo fa jaar tàgge leen mu mel ni kon ñii di waa Séville toog nañ ci lii di Ligue des bi ñu jógee ED Estadio Deportivo ne coow dem wutali Mundo Deportivo. bi Yiskeya moom lu mu fësal nee na à couvert à couvert mooy maanaam. bu leen rëcc bu leen daal ña muy waxal nag mooy waa Athletic Bilbao ñoom ñii kat match ba ñuy jongante ak waa ñii di Atlético de Madrid tey jii la waaye nag nee nañ am na lu ca bees de muy lan latéral bii di Youri moom mii dafa blessé woon waaye dellu si na ci équipe ba waaye kii di Imanol Alguacil moom nee na ma ngay dem fële ca Wanda Metropolitano ak Koulouté. Marcelino Marcelino. Alguacil mooy Real ah, Sociedad. voilà maa ngi jégalu sama gars yi <laughs> Marcelino moom mii kat nee na maa ngi dem mais. maa ngi dem ak kóolute gu mat sëkk te sama équipe bii wér na ma ni amul benn club boo xamante ni tëna ko ñëpp la mën a gañe moom Marcelinho mooy wax loolu. ñu jógee Mundo Deportivo bis kaya dem wutali Mundo Deportivo ji plus quoi. moom lu mu fësal mu ne pot de champion. ñii di waa Real Sociedad yi ñoom ñii kat dañoo wut ay moyens yu bees yoo xamante ni moom la ñuy fas yéene jogante seen final bi war a dox seen diggante ak Athletic Bilbao loole mu ngi jëm ci coupe du roi. bu daaw ba bu daaw ba. mu mel ni nag ma mayo yooyu ma ngay doxat bu baax a baax fële ca Real Sociedad ña ngi koy jënd bu baax ñoom nag nee ñu lii moom. lu baax loolu la ci ñun ñi waaye kii di Erling Haaland démb dafa def toog nañu Porto tamit moom moo éliminé Juventus de Turin ñu jógee Mundo Deportivo Gipis ko waa ne cow dem wutali Les Sportivo moom lu mu fasal moom la dignité. dignité de xanaa mooy. fulla ak fayda nee na ñii di waa Barcelone am leen fulla am fayda nag ngir tey ngeen mën a def jogante bu baax fële ca Paris Saint-Germain ndax kanam gi ngeen yor jamono yi ci Europe maanaam Ligue des champions kenn xàmmewu leen bu ngeen ñëwee ba mu ne day neex rek. ngeen mujj daanu mais nag am leen fulla ak fayda ba tey ji ngeen def match bu baax yenn waa Paris Saint-Germain waaye commande mooy coach ba moom ma ngay wax nee na ñun du ñu bàyyi mukk lu ñu am lépp dinañ ko ci def moom mii di Ronald Koeman moo wax loolu. ñu woyal ñu jógee le sportifs wu dem seeti Mundo Deportivo moom ma nga fësal Ronald Koeman ca xët ba rien n'est impossible. nee na dara jafewul wala dara mënul ñàkk a nekk lu mën a nekk am na lépp mën a nekk lan muy lan. dem qualifier lii fële ca Paris Saint-Germain naam xam naa ne du yomb waaye nañu jëmbat fulla ak fayda ndax kat Paris Saint-Germain équipe la bu baax waaye ñun tamit ah dañuy def fulla ak fayda de ba am fa résultat bu baax a baax waaye kii di côté Barcelone kii di Aronjo ak kii di Piqué duñ ca bokk boo jëlee côté Paris kii di Neymar Junior moom it du ca bokk ak Moise Kean ak Bernat ak Bernat Juan Bernat moom mii kat ñoom ñooñu kat duñ bokk ci jongante ba waaye kii di Laporta Laporta moom mooy coach kii di mooy président kii di Barcelone moom mii kat nee na. dina jokkoo ak Messi te ma ngay waxtaan ak moom bëgg nañu liggéeyaat nag moom mii di Laporta moo wax loole nee na nag ña nekk ci équipe ba maanaam personnel ba maa ngi leen di sant di leen gërëm seen liggéey rafet na trop te dinañ gën a yaatal mbir mi waxtaan bu baax a baax. ñu jógee Mundo Deportivo dem seeti Esport moom lu mu wax. mu ne la nee na daal mën nañoo gént waaye gént gi nag nañu fexe réaliser ko maanaam dëggal gént gi ñii di waa Paris Saint-Germain kat mën nañ leen a defal bagage ñun waa Barcelone naam ca ale ba dañu dooroon 4-1 waaye ña ngay dem fële ca Parc des Princes ngir lan def jaloore éliminer leen ah loolu lañ bëgg de waa Barcelone ñoom. ñu jógee Espagne ne coow dem France fekk fa l'équipe l'équipe lu mu titré. mu nee na un compte à daal li ci xol yi nañ ko génn tey jii suñu jàkkaarloo bi ñuy am ak waa Barcelone nañ ko génne li ci xol yi mooy lan éliminé bi mu ñu defoon 2017 lu ñaaw loole gàcce googe na dañ tey ale ba nag dóor nañ ko 4 euh, tey jii nañu ñëw rek Barça gii xam na ñun waa Paris ñoo ko mën l'équipe mooy wax loole l'équipe daal nee na tey jii gañe bu leer bu set wicc la bëgg ci diggante kan kii di Barcelone ak kii di Paris Saint-Germain tey ci ngoon la ñu jóge fa rek ne coow dem Italie fekk fa Corriere dello Sport lu mu titré. trahi par Cristiano. kii di Cristiano Ronaldo nag moo leen wor ñoom waa Juventus de Turin ndax yaakaar ga ñu amoon ca moom moom ka démb dafa feeñul dara dara dara ci jongante ba loolee sax dafa tax Juve moo gagné sax 3-2 waaye nag dafa toog. dañ ko éliminer doyul kon nag kii di Pirlo ñàkk na. démb ci ngoon. tey mer na démb. mer na ba futtu. Ah. mer na ba futtu ñii di waa suuf kon éliminé til nañ leen mu mel ni kon ñoom yàgg nañu lool ci Ligue mun champions mënuñu def ay jaloore waaye kat bu ngeen xoolee tamit ca championnat ba kii di Conte daal moo fa ne rek di bomb ndax moom daal ku ko dóor alee rek bu retouré rek faj na la te ñu doon xool ay poñ ñoom ñëpp moo leen ëpp poñ kon kii di Conte moo fa mën daal fële ca Série A ba. ñu jógee Corriere dello Sport dem Tutto Sport lu mu fësal. moom nee na pas comme ça. nee na du nii de yëf yi moom du nii ni ngeen ko doon defee démb yéen waa Juif du nii nee na lii kenn mënu ko woon xalaat ba di ko gëm lan Porto éliminé na Juif ñu ne déetawaay ñu ruus Porto ngeen nekk onze ñoom ñu nekk dix mënu leen leen a éliminé loolu ñaaw na lool waaye nag kii di sari nii la fi defoon dañ ko éliminé woon ñu dàq ko kon nag guddik Pirlo moom dana lëndam lool démb te fi mu toll nii ëllëgum tamit wóorul fële ca Juif. ñu jógee Tuto Sport dem jeexalee Gazzetta dello Sport moom lu mu fësal. la Juve dans l'obscurité. kii di Juventus nag ma nga ci guddi gu lëndëm lool lool éliminé nañ ko démb ci Ligue des champions bi waaye nag doomu ndeyam bii di Antonio Conte moom ma ngay bind taarixam fële ca Inter moom daal am na coach yu fa jaar fa ñu bind seen tur daal bind nañ fa turam daanaka ku ci mel ni kan. Ayam Herrera Trapattoni. ak ñoom Marino ak Consago Konte ma nga seen biir. mu nga ci seen biir ndax liggéey bu rafet lool lay def fële ca Inter di di Gigio Donnarumma moom mi kat moo leen téye ca Ligue Europa ba ñuy dund. mooy góolu AS Milan mooy góolu AS Milan Europa ba daal buñ nekkee nañu sant kii di Gigio Donnarumma Donnarumma Donnarumma moom moo nag ñu des di dund ni xam nga ku ñu am. Manchester United la ñu am. ñoo jëm Old Trafford. waaw loolu jeudi lay am. match bu neex. kon daal ay jinne tase. Mm, daje ba suba incha allah nga abonné suñu compte YouTube King Ouse Ngary sant ak gërëm la ñëpp ñu doon teewlu ba suba incha allah.